depuis daaw suñu résultat yi macha allah euh, ñu ngi ciy sant yàlla euh, bon ren nag euh, dañoo liggéey ci anam yu xaw a jafe parce que corona dafa ñëw wax dëgg yàlla ñu toog fi ñaari weer yuñ jàngul reprise bi aussi xaw na woon metti parce que les gestes barrières yi ñuy wax dañ ko waroon a respecter te ku ne xam na ne xele xamul yemale donc ce qui fait que xawoon na métti suñu côté euh, mais ñu ngi sant yàlla tey bi nga xamee ni eggale nañ année bi ci jàmm eggale nañ ko aussi ci ay résultats yoo xam ne nii euh, ñëpp a ngi koy rafetlu ñu ngi ciy sant euh, ci résultats yooyu noonu ren am nañ ñeenti mention très bien donc loo xam ne nii la xëy na mënuma wax ne c'est une première mais bu dee du première aussi gëj na fi. Euh, ñu ngi ko amee nag ci S1 bi ñaari mention très bien yi ñaari mention très bien yi ci des S2 la mais nag première S1 la ñu def donc ay xale yoo xam ne la dañoo jógee S1 daw wuti ji mention euh, donc euh, ñu leen di féliciter au passage xale yooyu alors pour ñëwaat maintenant ci contexte bi ñu liggéeyee li tax ñu xëy na ñu am résultat yooyu ñetti poñ laa ko laa ci teg muy d'abord pas-pas bi xale yi wone parce que xale yoo xam ne nii la depuis bi ñu duggee fii macha allah xam nañ lu ñu bëgg euh, sérieux nañu ci li ñuy def te wax dëgg yàlla fu ñu toll ñu ngi ci bay seen waar donc motivation donc xale bu amee fu mu toll bu bëggee gis ñu koy jàppale day neex a dem day neex a day day day am li mu bëgg daal. Euh, beneen bi ci des maintenant mooy enseignants yi ñu fi am macha allah yal na yàlla laf cat. ay enseignants yoo xam ne yàgg nañ ci métier bi donc li ñuy wax expérience am nañu ko euh, daanaka ñoo ubbi école bi am na ñu fi def ñaar fukki at école bi am na ñaar fukki at ci ren am na ñu fi def fukki at ak nàngam donc euh, ñu xarañ lañu hmm, xëy na loolu aussi jàppale lañu ci ñu am résultat yi ñu am tey ndax bu euh, jafe-jafe amee expérience daf ci am solo parce que mooy tax nga xam fan ngay accès yow sa jàngale. fan ngay xëccee élève bi fan ngay appuyer élève bi pour mu mën egg fenn fi donc lool expérience daf ci am solo té loolu machallah lycée moderne am nañ ko ma di leen di ndokkel ci résultat yi ñu am ñoom ñoo ko moom ba ma koy waxee donc c'est à la base enseignant yi buñ fi nekkul woon tey administration du fi toog bay euh, am mbégte ci lii ñu am tey donc euh, lépp ñoom la euh, maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant leneen li ci des maintenant mooy accompagnement maanaam euh, ñun ñi nga xam ne ni ñun dafa yàlla teg ñu jiite école bi donc il fallait que ñu teg benn dispositif boo xam ne xale yi dinañ mën a jàng ci anam yi mu gëne anam yi mu gëne mooy lan mooy respecter geste barrière yi nga xam ne ni moom la ñu tegoon donc euh, wàccoo nañu ak loolu accompagner nañ xale yi balaa ñuy dellu siwaat ci reprise bi aussi ñaari weer yi ñu toog yëpp xale yi tooguñu tëdduñu di nelaw xale ñu ngi continuer woon di jàng bien vrai que euh, ministère euh, defoon na ay cours en ligne mais ñun au delà de ces cours en ligne euh, xale yi ñun nañ leen accompagner ñun suñu donc bi ñu non noonu waxtaan ceeg prof yi ba juboo am macha ñu groupe whatsapp groupe yi nag bi koy def parce que xale yépp ñu amuñu portable xale yu bari amuñu connexion donc foofu la administration accès donc man maa ko defar personnellement groupe yooyu xale bu ci nekkul woo naa say jur xam ba xam lu tax nekkoo ci problème bu buñ ma wax tamit maag proviseur ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci école bi jàpp nañ ci jënd nañ fi portable jox xale pour mu mën a connecté wu jënd nañ fi ay carte de crédit yónnee leen ko pour xale yi mën a connecté wu pour wax leen ne rek ñun ñoo ngi woon seen ginnaaw li leen topp pour que wax dëgg yàlla ñu am résultat yi ñu am euh, macha allah xale yi tamit ay jàmbaar la ñu xam nañu loolu xam nañu loolu ba euh, vraiment li ñu doon xaar ci ñoom def nañ ñu ko. 477 candidats la ñu woon. juróom-ñetti candidats ñoo nekkoon ci s bi donc ci juróom-ñetti candidats yooyu ñoom ñëpp jàll nañu. S1 premier tour la ñu jàllee maanaam daal 100 pour cent la ñu am ci s bi loolu nag dugguleet at bu jot 100 pour cent la ñuy am S1 euh, ren nag li ci li ci bees rek. té muy lu ñuy kontaan mooy ñaari mention très bien yooyu ñu ci am euh ak aussi ñaari mention bien ak ñetti mention assez bien manam dal ci S1 bu kenn mo ci amul mention pour won len rek niveau bi machallah baxna